ndax li nga waxal Mame Mbaye Niang sos yow Ousmane Sonko ñu yóbbu la tribunal ngay def ay ruube ay njuñ njaaj heure boo waree ñëw taxaw janloog Mame Mbaye Niang wut pexe ab lay bañu ñu dàq ko 2 février ñu dàqaat ko ba le 16 février ñu dàqaat ko ba le 16 mars ñu dàqaat ko ba le 30 mars kan moo tax ñu dàq ko benn nit rek Ousmane Sonko. bis bu nekk mu ñuy àttee Mame Mbaye Niang mii ndax moom lañ tooñ moom lañ sosal moom lañ yàq deram léegi nag ki nga xam ne moo yàq deram ne dafa détourné ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent mënul fexe ba génne firnde yiñ ko laaj waaw yaa waxal ndiw ni dafa sàcc nanga mu milliard kaay joxe firnde yi rek ay nit di dee ngay taalu dëkk bi ay mobilisation ay tey nañ def ay marche waaw yow yow xanaa naroo indi tribunal liñ lay laaj mooy preuve yi mooy firnde yi tey jii biñ ñëwee nag te bi nga xamee ni wiiri wiiri jaari ndaali tey atte mënul ñàkk ut benn certificat médical xam ne kenn mënu ko recevoir ndax avocat yi seen bopp amuñ droit joxe ko ndax amuñ droit wax tànk seen client muy prévenu mooy ki yoon topp muy Ousmane Sonko ñëwul xam nga ne yoon dafa ni hmm, ci plan pénal mooy bu ñu leen atte atte atte ñaaxum ak ay ay ay ay infraction boo ñëwul taxaw sa avocat amul droit wax sauf dispense boo xam ne président moo leen ko may te président mayu leen ko mais comme ñoom ñun xamoon nañ ni ñoom duñu ñëw Sonko amul fiti ñëw lu may taal Sénégal jaral na ko mu bañ ñëw cest à taal réew mi wuy si Mame Mbaye rek génn na firnde jaral na ko mu taal Sénégal ndax amul benn firnde kon yéen na leen wóor waa yëpp di Sonko mi doon sosal Mame Mbaye amul benn benn firnde bu wane ni Mame Mbaye jël na ñaar dërëm ci Prodac kon tey yoon daan na ko daan nañ ko ñaari weeri sirsi ak ñaar téeméeri million yu war a fay Mame Mbaye Niang muy ndam lu rëy ndax tey fen daanu na dëgg jolli na tey dëgg doxantu na ci kaw fen kii fen Ousmane Sonko la kii wax dëgg Mame Mbaye la loolu ngeen gis yéen ñëpp ki daw sàq yi bañ a bëree Ousmane Sonko la kii ñëw pour bëree bis bu yàlla sàkk xam ngeen ne Mame Mbaye Niang la parce que moo yore dëgg gi parce que nag neexul nag yore woo dëgg taxaw tribunal ay gor ay gor di la seetaan ngay kàcc di kàcc di kàcc ñëpp xam ne ñëpp xam ne da ngay kàcc tax nga daw daw daw kon boog Sénégal verdict bi ngeen doon xaar wala verdict bi ngeen doon xaar wala verdict bi ngeen doon xaar wala euh, alors verdict bi dafa gaaw ndax ah comme kenn ki ñëwul ndey mbili gi ñëwul ki sos ñëwul ki wax lu dëgg ñëwul ki yàq deru gor ñëwul ki ki yàq deru nit ñi ñëwul ki nga xam ne yomb naa wax dëgg ñëwul mbir mi da yomb ndax moom li mu waxal nit amul ndax mënu koo weddi ko mënu koo weddi nag ah lu ciy am mooy daaj ko rek rëq ndigam rek ndax nit na na na Fatou Ndiaye Fatou Fatou Talla Ndiaye nee woon na na na leer looy wax na lay leer. oui boobu la en français oui ce verdict. c'est un verdict qui consacre la victoire de Mame sur Ousmane Sonko Ousmane Sonko qui a fui aujourd'hui le débat qui s'est comporté en poltron parce qu'il n'a pas d'éléments il n'a pas d'arguments il n'a pas de preuves à fournir au tribunal C'est pourquoi, comme vous le savez, depuis le 2 février jusqu'au 30 mars, en passant par le 16 février, le, le, le, le 30 février, Mambéignan euh, s'est toujours présenté alors que Ousmane Sonko a toujours refusé de venir comparaître pour donner des preuves au tribunal. C'est pourquoi que le délit de diffamation existe, que Sonko a diffamé Mame Mbaye Niang que Mame Mbaye Niang avait raison de l'attraire devant le tribunal que Mame Mbaye Niang avait raison de se plaindre aujourd'hui il a gagné il a gagné parce que il a raison et faute et faute de combattant l'autre a choisi carrément l'absence, a choisi la lâcheté. Parce qu'après avoir quand même diffamé un honnête citoyen, de surcroît ministre de la République, leader des jeunes, on refuse de comparaître, on cherche des prétextes, des alibis. C'est lâche, C'est honteux. C'est indigne. rappelez le verdict du tribunal. Le verdict, c'est la condamnation de M. Ousmane Sonko à deux mois avec sursis et à la somme de millions de francs de dommages intérêts à payer à Mambay oh, Mais, nous, nous avons gagné. Le tribunal a consacré le mensonge, la diffamation, de, de, de Sonko. Sonko a toujours donc raconté des histoires et le tribunal donc a montré que Mambéignan avait raison d'attraire M. Ousmane Sonko au tribunal pour que nul n'en ignore, pour que les Sénégalais sachent qu'il n'y a pas de détournement de deniers publics que Mame Mbaye Niang n'a pas détourné. Et cela est clair. Maintenant, tous les Sénégalais savent et doivent le savoir. Ousmane Sonko est un menteur. C'est quelqu'un qui a diffamé, quelqu'un qui a menti sur toute la ligne, qui n'a apporté aucune preuve. Et, et comme le disait Fatal Ndiaye, l'œil quelqu'un qui raconte des histoires sans pouvoir donner la preuve de ces déclarations mensongères. Une grande victoire. Non, non, on ne cherche pas à On a dit le droit et on a condamné. Je laisse mon confrère Olivier Sûr, bâtonnier Olivier Sûr de Paris, s'adresser à la presse. Je voudrais, qu'il y ait du silence, une seconde.